muy liggéey boo xam ne it communauté mouride daf ñoo yeey ñun ñëpp ndax misaal yu bëri dafa nekk ci lii bu ci njëkk mooy li ma wax léegi ci tubaab mooy bu ñu gëmee suñu bopp dëgg dëgg dëgg dëgg amul lu ñu war a të ñun africain ñun sénégalais ndax yàlla jox nañu lépp dese luñu dara complexe yi ñuy am suñu digganteeg ñeneen ñi ba tax ñuy ñuy ñuy los gombaanu bis ñu ko dindee ci ñun rek te lool rek la ñu communauté mouride woon parce que lii fukki dërëmu étranger dugg ci lépp fii la muy message bu rëy rëy boo xam ne nun sorewul wala waroowul ak suñu message mooy patriotisme boobu ñuy woote ak gëm suñu bopp ñu jàngat ci it ni nee nañ ñu fii liñ fi def lépp loo xam ne ci liggéey bi ay sénégalais mën nañ koo def demuñu ko jéggaani ut feneen di ko jox ñeneen dañ koo jox sénégalais yooyu ba ci architecte bi defar plan bi gis ngeen plan bi ni mu kéemaane ab architecte sénégalais la entreprise yi def affaire bi sénégalais lañu li nga xam ne nag sénégalais yi amaguñ ci xam-xam parce que suñu technologie yeggul foofu dem nañ ko ut marok wala Chine wala feneen ak feneen waaye bi ñu leen àndee ba fii dañ leen da ngeen di liggéey ak sénégalais yi former leen def li tubaab bi wax transfert de technologie mooy xam-xam yi ngeen jox leen ko ba ëllëg ñoom ñu mën a demal seen bopp.